jëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi sëriñ Massila Diop la ñu fekk si war a séq ak moom waxtaan yaatu mbokk yi Papa ñàkk na kombaam ak Siteu nee na bàyyi na komba bàyyi na bëre mais for nañ ci wéewu béy ne Siteu ak Ama Balde am na ku ko bëgg a tëgg mbokk yi ba tey Boy Niang ma nga France di entraîné di waajal Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye mi ngi Sénégal di entraîné di ko waajal ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers ak Siteu tamit combat boolewu leen danañ ci dugg ànd ci ay leeral danañ waxtaanee Ama Baldé ak Gris Bordeaux combat bi ndax giri dafa dafa ko bëgg a teg xel wala lan moo xew ni Gris communiqué est-ce que mën na tax Ama Lac de jàpp ne Gris combat bi jarul ko fekk làmbi mag ak xale la bëgg a bëri ak moom waaye mbokk yi période bi période bu garaaw la période bu yéeme la ci période bi la ñu wooloon Ousmane Sonko mu delluwaat këram. mais moo Adji Sarr fii ak ay fan war nañoo def face to face am lu ñu leeral foofu nag ndax téysante mënu faa am tey danañ waxtaanee njariñ danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi laata loolu dañu bàyyi sëñ Massila Diop mu nuyoog askan wi ñu soo a xuus mbokki kii mooy sëriñu Modou ba tey nag Modou Lo combat ak Ama Baldé ci danañ ko laaj pourquoi combat bi ba tey mënaguñ koo sëgg dañu bàyyi sëñ Massila mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoŋ ngi lay ziar ñoo ngi lay delloo siyaar baax sang bi di la màggal di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa caméraman bi di ñaan yàlla saa boroom yal na yàlla yokk sutura si yokk xéewal yi di nuyu waa tundu kajoor gi ma bokk moo ko commencé tay ba njaay kër baakar kër màlle minna na daaru xuddoos di nuyu waa ndëkku di nuyu waa kajoor waa ndóomóor waa daaru xuddoos waa mbooro waa nooto maa ngi nuyu ñépp di nuyu sama buntu ci sëriñ tuuba muy sëriñ Muhammadal Murtada ibnu Seexul Xadim maa ngi nuyu waa ahlu bayti rasul di nuyu waa àdduna di wax ni maa ngi am ak njéggulu gu may def ci ñi ma woo jotuñu ma ndax yitte bu dajee ci say loxo nga doon benn loxo faawu léeg-léeg nga fay téléphone ndax ñun jomb nañoo doon ab jàmbu xeebu di wut bëkk néeg wala di wut ku ñuy wuyul suñuy téléphone ngir jëmmi faj aajoy jaam ñi yàlla nattooñu ko am na yoo nga xam ne jombale nañ ko suñu bopp maa ngi jéggulu ñëpp ñi nga xam ne woo nañ ma jotuñu ma caaxaan ak dëgg dañoo mënta ànd loolu rekk la ñoo ngi jégglu baax a baax di nuyu waa bitim réew di nuyu waa àdduna di nuyu bépp doomu senegal bu nekk ci àdduna di immigré ji allahuma salli ala seydina muhammadin wa salaam euh, sëñ la Diop dinañ dugg ci ren combat yu neex yi ak yan combat ñoo ëpp sens ak yan combat nga jàpp ne jël dana ci am yi ma la fi limal lépp danañ ci dugg ànd ci ay leeral mais balaa boobu da nga maa wax sànq lu am solo da nga ne ma baa xam nga ne période bii période samp la est-ce que loolu mën nga ko leeral. alaaj ji dégg daaj. waxtu wii may wax ak yow nii. tey ñu waxtaan ci xam-xam xaq yan ci période bii ñu toll nii. ñi bëgg a falu. ci période bii lañ leen di samp. ñii wut nguur. ci période bii lañ leen di samp. xam nga période bii mbër yi. ci lañ leen di samp. képp kuy wut ci àdduna dara bëgg cee samp diirub juróom-ñaari at bu àndeek dogalu yàlla ci waxtu wii lañu lay samp xam nga du tax ma xam loolu période biñ toll nii liñ bayan lépp ñor na ñi ngi jaay liñ bayan mhm. liñ bayan ñi ngi koy dunde mhm. ndox ndox wàcc na mhm. kon période biñ toll nii ci la ñuy commencé samp ñi nga xamante ni dañoo bëgg ku leen samp ndoxum taw mu njëkk maat des na ca samp waaye période bi toll nii dëgg dëgg samp période bi toll la loolu maa ko fii période bi toll nii képp ku bëgg aarwaay ci période bi nga koy wut képp ku bëgg lu la musal ci seytaane période bii période bu doy waar la ci wàllu gàllaaj maa la ko wax fii. man ngi dañuy wax naan bu dugub feccee lépp mën naa baax dugub ji fecc na. mooy li ma la wax rek. ñii wut ba ci jongante bii ñuy dem. période biñ toll nii. bu fekkee dañ leen a ñaanal te naxuñu leen. côté boobu nag. waaw bu fekkee dañ leen a ñaanal te leen. li ñuy sàkk suñu borom mën na koo jàpp ndal. Mhm. xam-xam nag daa yombul. Mhm. ndax li ma gis nii xamuma ko li may dégg nii xamuma ko li may teg sama bët xamuma ko ab jullit daa war a wax lu muy maîtriser di def lu muy maîtriser période biñ toll daal ma wax la képp kuy wut nguur wala képp kuy wut ku la samp bu àndeek dogalu yàlla nga dajale la ak sëriñ bu ko man yàlla sedd na ni boo ko defee du laal suuf day nangu incha allah rabbi. mais sëñ Massiré Diop tey ci wàllu kaaraange nit ki soo koy digal mu ut lu mu takk wala mu ut lu mu suuroo wala lu mu sangoo wala sax lu ñu liggéey daaj ko ci garab ban moo gën a assuré ci nit ki. noo bu dee ci fànn boobu man xalwatu dama gën a jubu ci lépp. gis nga yaasin ñaata mubin la. du juróom-ñaari la. la mu xanna jahadin ñaata ña ñaata la. set araf la. des ci dugg xalwa du laal suuf. amul loo ciy dugg xalwa ñaan ko bagaase mi àndal nag duma ko weer. ndax bunt boo ko ubbee. leeraloo ki bëgg ñëw bëgg tëb digg ci bunt bi te amu ca ndigal. mën naa dugg tëju. maa la ko wax fii. dégg xam-xam dafa neex. Mm-hmm. am ko dafa neex. Mm-hmm. jàng dafa wóor. Mm-hmm. ndax day am loo nga xam ne danga koy jombale sab der. ndax bu la ay góor juree. li ngay njëkk a sóoraale mooy nga fas yéene dundalu leew. ndax bis day ñëw rekk ñu tënk la suul la. jullee la. sa digganteek sa boroom sa diggante. ak ñi nga doon lekk seeni alal te léwul woon yàlla nañ ci yàlla musal da jàng mm-hmm. da ngay tarbiyewu mm-hmm. da ngay dugg ci loo xam mm-hmm. def loo man nañu sëriñ si ñaan ñi ci ëpp nañu orienté wu séentu asamaan jërul buuxante am na ci loo nga xam ni mujj ga du doon luy rafet te dunduk doomu aadama lépp mujj gu rafet moo ci ëpp solo. maa la wax loolu dégg. sëñ bi des fois nit ki tëdd di gént di tiit des fois nit ki tëdd di gént di ragal des fois nit ki tëdd di gént sax am yu ne ci kawam lii yóbbante la boo xamante nii dama ne woon su ma naa la ci laaj jamono jii dafa mel ne ñëpp a ko yëgandoo di géntandoo. allah ji dégg fii may wax ak yow nii. saytaane dafa jóg. ñaata accident ngay wàññ nit ñi di génn àdduna damay lancer nag message. nañu moytandiku ñaari ruu yi. moto. Serigne Touba na lii ma lay wax. période mi toll nii. saytaane laxasoo na ak moto yi. kon moto yi nañu def ndànk de. nañu moytu. ndax période bi toll nii maanaam dugub bu ñoree. saytaane yi dañuy jóg. période bi tool nii dañoo jóg looloo war a accident yi am. looloo war a li ci ëpp day am yàlla mooy dogal nag waaye yàlla yàlla bay sa tool la. ndax boo toogee ci sa biir néeg liggéeyoo naan damay xaar yàlla mën nga koo sa aajo mën naa yéex a faju yàlla nag fépp la nekk. maa la loolu fii. Euh, sëñ ma Sylla jóob euh, tey gis naa la nga toog jël enveloppe teg ko ci sa wet man nag dama ne riis naa xaalis laa ko teg de ah, lu ne ci enveloppe bi. waa kii enveloppe bi garab la mooy garab gi ñu doon liggéey di ko yóbbu bitim réew. moo nekk nii man xam nga yàlla suñ boroom dafa dogal ni xam-xam. xam mm-hmm. moo nekk nii. xam-xam. Ah. suñ boroom tabaaraka wa taala dafa dogal nii lépp lu ma lay wax. Mm-hmm. daa lay teg. Mm-hmm. nga teg ci sa baaraam. garab gi moo nekk nii. Masamba liggéeyu ko demba liggéeyu ko maa ko liggéeyal sama bopp. képp ku néew kàttan boo jaxasoog man boo àndeek dogalu yàlla. li nga ca bëgg suñu borom dina ko def bi ci topp. maa koy liggéey joxuma ko ma sàmba joxuma ko ma demba ku jot kaneen yaa jot kaneen waaye ku jot sama benn numéro bii ma yor. awma secrétaire awma ku wuyul. loolu leer na mooy leer. ku wootee yow lay jot. wallaahi wal quraan asiim. benn xel du ko wuy. ji dépassé naa loolu. Mm-hmm. man nëbbutuwuma. dëgg la kon garab daal xëppante ndox la. garab gi moom def gis la. bu xante ak dogalu yàlla non am na ñi ko xam ñi ko xam ñu may wax ñi ko xamul moo tax ma di ko présenté laaj giñ ma koy laaj wala rabul kaabati moo tax ma di ko présenté man suñ borom dimbali na ma du ma wax lu neex nit damay wax saraaxatan li nga xamante ni moo nekk li nekkul du ko wax ndax jombale naa ko sama bopp ndax nag am na lu ñu yàlla may te dégg tey naa la benn mbir nag boo nga xamante ni faaw ñu waxtaan ci. Mm-hmm. doomu aadama yi gëm nañ ñaan waaye ak may lañ gëmul. gëm ñaan waaye ak may lañ gëmul. Mm-hmm. xam nga da tax ñu gëm ñaan. Mm-hmm. chaque jour ñu toog ci jàkka yi ni allahuma. yàlla may dégg daaj. ñu naan day jaay doroog day def nangam. xanaa kon gëm nañ waaye gëmuñu ak may. ma ko ji ku maye. kuy maye. mais yàlla mi doon maye dafay jóg. mais lu tax nit ñi mënuñoo nangul nit ku yàlla may. baatin suñ borom da koy may nit ñaan mu nangu suñ borom da koy may nit nañu bàyyi weddente bi nañu bàyyi weerante bi àdduna yàggul te nit ku ci nekk am nga ayib joo nga xam ni suñ borom mi ngi ko jël fas ko téye bëggoo kenn ku ko xam nañu bàyyi weerante bi àdduna amul solo nañuy wax ci xam-xam nañuy def ci xam-xam loo nga xamante ni lu jub la bi ci des nag mënuma ci wañ a bañ a dugg parce que su wax sonn naa da ci wax mooy suma mbokki sëriñ si nit jël juróom-ñaar fukki junni jox la nga bloqué ko am na ci koo nga xam ni maa ci teg sama tànk won naa la lépp lu leer sama tray bàmmeel mais alal dafa sax ci boroom nit ki bu yëkkatee alalam jox la ko yaakaar lay am soo mënul nee ko mënuma ba muy dem bitim réew xamoo nu mu def ba dem kon da ciy am loo nga xam ni nañu ko bàyyi te gone yi war a toll ci dem liggéey nañ dem liggéeyi mbaa ñu dem jàngi kaala du njëkkee ci ndigg bu njëkkee ci ndigg du mujje kaala maa la ko wax fii day am loo nga xam ni mhm. nit. am na loo xam ne doo ko sàkkul sa bopp suñu borom moo koy def. suñu borom moo koy nattoo nit. xaw ma dégg la xaw ma déggoo ko. léegi da ngaa fas yéene ni dangay gis nit ñi yor ci seen oto yi. yàlla dogal ko ci ñoom nga xëy rek toog fas yéene def say émission. di fas yéene dunde nu la neex. buñ la joxee seen xaalis nga boole ko ko buñ la waxee nga naan sama jabar dafa feebar sama papa nee na nii. man dégg damay rus ni ab sëriñ laa waaye nag lépp lu nit di def ngir koomum àdduna na nga jàpp ni bis dina ñëw dinga ko bàyyi ndax doo ko tal ndax ku am lante rendez ak suñ borom doo tardé ah ah <laughs> dégg man daal damaa ragal ni dunduk doomu aadama gàtt gém gàtt képp ku mën a jël alali jàmbur di ko lekk te xalaatoo bisu pénc wala biir bàmmeel nga kilim yi neex na oto yi neex na mais billaahi wal kitaab bi di nga ci sab ruq ni su ma yëgan am na ci loo nga xam ni su ma yëgën duma ko dund ci sama doomu aadama ci sama kanam ak sama diggante ak jaami yàlla yi loolu maa la ko fii dégg ma sëriñ Massila Diop Siteu dafa daan Papa Sow Papa Sow taxaw ne ko bëggoon naa su may bàyyi làmb yu yóbbaale victoire mm-hmm. mais ni la ko yàlla dogalee daan ne ko damay bàyyi làmb ñu ne waat Siteu fu mu jëm am ñu ne Siteu Ama Baldé combat la. waaw man de bu may tëgg wax dëgg yàlla boobu laay tëgg. Siteu maa la ko wax fii gise ferme laa koy def bu ma ko doon tëgg. Ah. maa la ko wax. am naa nag lu ma jaaxal lu ma gis ci moom moom Siteu. muy ngor. waaw xam nga lu tax. damaa gis kër gi muy tabaxal fóode. yal na ko yàlla xare àjjanay firdaws mbër booy door mm-hmm. dangay am ñooy àndal da nga leen di sooraale mm-hmm. mbër booy door da nga am ay nit yooy àndal yoo nga xam ni dañuy dund ci sa ginnaaw mm-hmm. mais nga xëy jekki rek bëgg a féeteerlu loolu wor la man gisuma ci moom wor moom Siteu li mu def dafa rëy parce que ay million dafa foor ngóor soosu est-ce nitu làmb la sax est que ah. xol bi mu yor xolu mbër la ah déet ay caaxaan lu ni fàng kenn du ko jeex ñu jox la ay millions nga takk ko fuuyu woo sa ginnaaw dem tabax ko jox ko nit ku yaayam ku doomam génn àdduna te ngeen doon ànd ëllëg yow mal xeyam yàlla du laaj seen ànd boobu ndax sàmm nga ko ni ko war a sàmme su ko neexan tabaxal ko kër luy jikoo kon Siteu Ama Baldé damay ñaan yàlla mu taxaw man est waaye dañoo war a bëre Ama dafa war a bëre Siteu dafa war a bëre dañoo war a bëre dañoo war a bëri nañ jot ay avance bëri lañ ay gone lañ. dañoo opté pour làmb nañ leen bo xam nga Ama Baldé Siteu. ñoom ñaar ku ci nekk dañ la loo nga xam ne musoo koo fayeeku nit ñi waxatuñ waxu war a daje waxu xaalis la nañu bëri. làmbut fi mu toll nii. xaalis amatul ci dëkk bi. luñ war a def lu jul bëri dañoo war a bëree. Siteu Ama Baldé su ko ko tëgg. waaw gise fermé nga koy def doo jaay biyee ci suur bi. ilaaha Balde mooy borom Pikine bu jógee àdduna jóg. laa ilaaha gis naa ko ak xeetu tegtal yoo nga xam ni. billaahi lazi laa ilaaha illallah ñu ko ñaanal. mais mën nañoo ñaan. nit ci loxoom. duma ko tudd ndax awma ci ma leer. Hmm. mais wallahi wal quraanul asiim man man li ma xam ci ñaan am na ci loo nga xam ne bi ma ko xoolee dama ne xaw ma kii ku ko ñaanal mais ñu ko ñaanal juumuñu. bi ci topp daa am ay nit yoo xam ne rek dañoo gëmul ñaan nee nan ki dem jàng a ilmu juum ba pekku téye ko yàlla man loo ko listixaar bu wér mu jàng alquran mën a dagg musalas mën a dagg xamas dama koy tënk nga jóg nga ni amoo gëmoo ñaan yaa man a nax sa bopp barki Seydina Mohamed ñu ni gëmu ñu ñaan ñëpp dañ buñ buñ làqatoo dañuy génn dañuy buñ làqatoo dañuy génn dem ñaan lu ji dëgg la lu bëri man daal tudduma ñooñu moom tudduma leen. du ci baaraam la. non tudduma leen ndax man damay wax li may wax. des fois ñuy joxoñ euh, baaraam ci sa waa ci kër yi nag. non si monsieur la foofu tamit faa nga tontu. non wax dëgg yàlla amaguma lu ma ci leer. ndax jàkkaarloo wala gul ak man wax ma ko maa koy nuyu sax au passage Modou Lo xarañ Lo le roi des kooku mooy neex a faral dimanche. sama tàkkusaan gaag moom ca stade Léopold Sédar Senghor. waaw dootuma bànneex. bu am ci bis boobu keroog duma ko gaaw a amati. lan moo tax mënta samp ndëggam ndëndam laaj ci mbëri wala mbëri laaj ko. donc xam nga ni dégg bàyyi woon naa wax ci làmb mais tey def benn déclaration bu doy waar. Ah. di nga gis ci at mi ñu jëm. waaw combat bu doy waar boo nga xamante ni bu amee. jàppal waxtu ak date beeg heure bi. komba mooy dàq ci at mi. waaye nag day doon. luy bettee. maa ah. la ko wax fii. waaw dinaa la ci wax lu leer buñ toogaatee bu soobee kii maye. ba ah. waaw. mbëri sorante nañ. xam nga dégg. sorante nañ ñiy bëri. dégg am na ci loo nga xam ne du ma ko leeral. ndax sorante nañ. mais combat boobu dina taxaw. foo wuñ ko woon de xanaa. bu ñu taxawee. dinga gis coow lu rëy nag. Mhm. xam nga dégg. waaw. listixaar bu wér. Mhm. amul lu ko gën a wér ci àdduna. Mhm. suñ borom dañ koo jagleel. suñ borom dañoo jagleel seet. suñ borom dañoo jagleel xam nga dégg daaj. gone yi nañ dem jàngiwaat. tey ko ak tooñ ndax tooñ baaxul tooñ mooy lekk alal nit te la nga ko wax amul la ko wax defoo ko la ko wax xam nga ni mënoo ko loolu ak tooñ la ñii taxaw nag di dëkke ŋàññi sëriñ si am na ñoo nga xam ne wey sëriñ si ñoo leen gën ndax lañuy def sëriñ si duñ ko def lañuy jëf sëriñ si duñu ko jëf sëriñ nag li tax ñu di ko xas nit ki mooy ci jëfinam ndax boo waxee ba ñu gëm la dangay jëf ñu teg ci bët man duma ni nit yàlla nuyu na te gisu la mm-hmm. lu ma xam laay wax lu ma man laay def lu ma xamul du ma ko def xam nga mbirum tamit euh, war nga ñu ci dimbali ndax am na loolu ci yàlla may waa loolu dañ ñu ma koy wax ambassadeur ca France mm-hmm. yàlla seeta na ko ak yonent bi mm-hmm. dinaa la génneel tey dossier yu doy waar li sëriñ si def nag di la signaler gauche di génne droite man fekkuma ci man lu ma la wax daay génne firnde bi soo noppee ma tagal la benn par benn lu ma ne daa la koy may dama la koy may lu ma ne daa koy defal dama la koy defal man lu ma wax bu soobee maw Mawlaana tabaraka wa taala dama koy def leer na këyit xam nga li gën a wóor sax daal dëgg maanaam pour loolu mooy nit ki soo xamee tabiaam tabiaam mooy boo xamee bidiwam maanaam pour nga ñaanal ko mu am ay këyit du doon lu jafe boo pour nga ñaanal ko xam nga ñaare damay listixaaral nit ba noppi ni ko bis bi nga njëkk a dem tukki bitim réew moo xam gàllankoor ni muy amee gàllankoor man ko daa am gaaf ba nga njëkk a fanaan biir France da indil problème mën naa laa wax ba njëkk a wax feebar bi la fa njëkk dal loolu jagleeg suñ borom la te buñ jógee nii di wax sëriñ si am na ñoo nga xam ni kenn du leen duut baaraam ci seen xam-xam loolu maa la ko wax fii day am loo nga xam ni soo ko weddee mhm. da ngay essayer mhm. soo essayer di nga xam am na wala amul mhm. dégg nañu mooy dindi ko tooñ tooñ baaxul tooñ baaxul yàlla sedd na ko yeneen tooñ baaxul nañu mooy dindi ko tooñ Boy Niang jël Balla Gaye 2 ñu ne Boy Niang dafa war a sëgg fii ut doole defar suuf gi defar loxo yi Boy dagg avion jël avion dem fa nga xam xamante mooy France di fa entraîner est-ce que lim def noonu gën na ci moom ku mel ne Balla Gaye koy préparé. Ah, préparé noonu. dégg naa nit ñi daal mi ngi France. Balla na gën naa koo gis nii jëxëran lu dul stade laa ko mujj gisee waaye suñ borom dogal na ni xañ na staffam ñoo ànd ak moom ci loolu. ginnaaw nag ñoo ànd ak moom ci loolu xam naa loolu moom duñ ci mën a guddal ndax ku ci nekk fa nga am yaakaar rek fa ngay dem dem fecc fa entraînement foofu lañ ci yem mais Sadio Mané ak Saliou Ciss jàpp na cat tamit euh, xawle na laal parce que Saliou Ciss bokk na ci ñi tax ñu qualifié coupe du monde demul Sadio Mané blessé lii tamit lii nga ma laaj de bëgguma ci wan a wax mm-hmm. malgré que nag sénégalais laa mm-hmm. Matar ba lañu warul woon a wàccee. waaw. dégg déglu rek. lu xew dégg dégg. man man du tur. mais ñi yàlla jox daraja ci dëkk bi ma leen di ñaanal ñoom xam nañ man xam naa. waruñu woon a wàcce Matar ba. c'est interdit. loolu maa la koy wax fii. xam nga dégg daaj. Hmm. xaayaan ku dégg séeréer Matar mënta jël coupe d'Afrique ñu koy daw mosuñu koo am ci Sénégal Matar ànd ci ak ñaankat yàlla yi nga xam ne am na ñoom yaakaar moom ba suñ borom ndam ñu dem jub coupe da li gën a jafe te Sénégal ma jàpp ni war na cee mën a am ndam lu kawe njortu moom coupe du monde bi ñu ñëw wàcce mataar Ba. da nga dafa am foofu non dégg loolu wër nekk. kii gañe kenn du ko kenn du ko changé. kii kii kenn du ko changé. bi ci topp Sadio dañ koy ñaanal xam nga booy yi day am loo nga xam ne xañ na nañu xool seen entourage ak seen ay mbokk. nañu xool seen entourage ak ñi niy jëf leen teel c'est très important ndax am na ci loo nga xam ni bu ñëwee nag dañuy wax ni dogalu yàlla la mais ndogal goo man di gis am na uslub uslub li ñuy wax uslub mooy sabab kenn yéenewu ko ko ndax couleur Sénégal rek lay défendre te nit ku baax la nit ku man social la bi ci topp sa Saliou man dama am ci moom ñeewante critiqué wu ma nag mais man ci li ma gëm ñun ay nit yu ñuul lañ damaa jàpp ne chaque jour bu ndee dem entraînement de entraînement ji ndaje mu ñu dem ñun sénégalais ak jom ji nu yàlla jox pour ñu défendre suñ couleur réew bu ñu la fa tegee man yaakaar naa ni sa jom mën na laa pousser nga def loo nga xam ni ki am club sax mën na koo bañ a dem mais nag li ci des dogalu entraîneur bi la moom la ñu jiital mooy doxal lim doxal dañ koy doxal ànd ak moom ñaanal ko yàlla may ko ndam ndax bu amee ndam suñu ndam la loolu rekk la waaw sëñ ma si la Diop tey euh, la ngay tàggatoo lay wax askan wi lay suivre ci MPROD TV waaw foofu moom li ma ciy man di wax mooy di ñaanal Aliou Cissé mm. yàlla defal ko ndam mais Yankhoba Diattara amul leen loo ko mën a euh, jàll benn message. waaw xam nga man nag li may tëdd guddi di ko gis am na ci loo nga xam ne du ma bëgg a toog di ko leeral. man Tiwaawan laa dëkk. jàng baatin xam ko am ko man ko ci dogalu suñu borom yàlla. man ci li ma gis laa wax de jëhërën laay wax man damay wax bu ma bu ñu ma wooyee ma teg ci baaraam. moom ba Diattara day door a ñëw na def attention ci nit ñi daw wuti ko. Mm-hmm. ñi daw wuti ko nag am na ci ñoo nga xam ni buñ ko recruter ay sëriñ mën nañ koo juumloo. dama lu leer laa lay wax nii buñ toogaan mun ma li nga wax ni foo ko teg mën na ko yàllaa ma ko won li ma yàlla woon su ma neexee wax ko. gis dafa te kooku noonu xamul sëriñ. non déglul euh, dégg mm-hmm. ñun ki xam dara ak ki xamul dara. Mm-hmm. xàmmee nañ ko. même ba ci sëriñ si wax ci internet bi am na ci ñoo nga xam ne dama lay dama leen gis mën la dégg kii am na xam-xam kii am na xam kii cër bi suñu borom may na ko ko. bi ci topp nit ku ci nekk li ngay xam danga cay yam li nga xamul doo ci dem ku ñëw nga bëgg a ànd ak moom ku ñëw nga bëgg a ŋarale su yàggee nga nekk naa féq dégg nga ki la jiitu ci néeg bu lëndëm xam nga man damaa jooy Matar Ba. barki Seydina Mohamed. baax kooku. xam nga dégg. xam nga su ma ko waxee. man soxlawuma sax ku ma woo. man damay ñaan li wa ci laayal karim Sénégal am ndam. ndax du du ma eh, li bay doon dunde ba yor sikkinam bii. man man duma comme sëriñ sii di wut nañ ma dimbali pour woo ma dépassé naa loolu barki Seydina Mohamed. man alquran laa gëm yàlla suñ boroom ak yonent bi su ma wasiila sëriñ tubaak ak su may waajur ak bàyyi laa ak seydi kon am na ci loo nga xamante ni gis ma ci doomu aadama personne bu ma ko jaral li ma koy lancé ñoo bokk senegaal gi ñoo bokk dëkk bi na xeppi ay bëtam tey xool li ma koy wax nii nag baat yi laa koy wax lu leer laa koy wax nii wutuma ci lu koy neex yaa ngi may dégg am na ñoo nga xam ni ay weñ lañ fu tooy ñu dal bu ministre ñëwee ku ci nekk dangay ngay mais dégg man wax dëgg yàlla day am loo xam dama koy rus man ñu gisan ma ak Matar Ba ma xëy xëy ni Matar Ba léegi kii man vraiment ak jikko yu bon yooyu yooyu lan la senegal gii nag ñun ñoo ko moom na ñëpp ñaan senegal jël ndam li te muy doon dégg ci ñun dañ ba gas bi ak fakastal bi am na ci nga xam ni nag fakastal bi moom door na nañu ko bàyyi. te xam ni àdduna amul solo Sénégal ñun ñoo ko bokk. coupe su fi ñëwee ñun ñëpp suñu mbégte la. suñu bànneex la te di ñaan yàlla yàlla na ñëw. mais yàngu ba dama lay wax ni ñaan yàlla. du fi jóg. baatin du fi jóg. ñi ni dajeeli ñoo bokk yàlla ji ñoo bokk lu ñuy ñaan. man dañoo bokk nag ay wuutaat ay tasarufaat mais ma lay wax ni ñaan yàlla wala booy wut ñaan dangay dem ci ku ko xam nga wutloo ko ko doomi daara yi ñi ngi fi ñi ragal yàlla ñi ngi fi ñi nga xamante ni am nga ci ñoom yaakaar personnellement dangay dem ci ñoom bi ci topp mataar ba mi fi nekkan am na ci loo nga xam ne soo ci lëkkaloo ak moom te ngeen bokk réew mi bokk président Macky Sall. soo toogee moom waxtaan ak moom fi mu jaaran moom Matar Matar kenn du ko di fii ngay jaar parce que ci dëkk bi rek xam na milieu bi. boo fi jaaree ak moom li ngay sàkk suñ boroom mën na la koo defal di ñaan yàlla yàlla na la yàlla defal ndam. yàlla boo gis looy ragal ci li ngay wuti bi ci topp ki nga dëkkal foofu rek mu nekk promoteur bu mag di di Diakhaté di suma xarit am na lu bari loo nga xamante ni soo ci lëkkaloo ak moom Sidi damay tudd damay tudd Sidi Jaxate de soo ci lëkkaloo ak moom moom si di Jaxate cees lu bari looy wut ci àdduna jëru nga koy jëgaane faneen soo ci waxtaanee ak moom mën na la koo defal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ay coo dégg ngeen waxtaanu tey ni mu alaa doomee ñu doon ko séq ak Serigne Massila Diop mu Serigne Mourtala Mbacké